ki nga xamanteni moy président turc bi di Erdogan bokk na ci ñi nga xamante ni ñëwoon nañ démb fekkee si daje bi nga xamante ni moo amoon fii ci diwaanu Sénégal ci daloo bi nga xamante ni ñi ko doon daloo stade bu yees bi nga xamante ni am nañ ko mu nekkee ci diwaanu Diamniadio di yoo sax ci turu njiitu réew ba woon di Abdoulaye Wade moom mi nga xamante ni nag mooy Erdogan ki nga xamante ni moo jiite woon kaaraangeem moo daal di rek wuyu ji boroomam ginnaaw ay xibaar yoo xamante ni jot nañ ko li waral lu mel du lenn rek lu dul crise cardiaque boo xamante ni daf ko daal di daaneel mu daal di fay jaare daal di ji boroomam moom mi nga xamante ni sax mooy Erdogan bu jugee bu jóge woon fii ci Sénégal dafa namoon daal di utali fi nga xamante ni nii mooy ci Guinée Bissau alxamis bi nga xamante ni nii moom lañu ñu dëgmal waaye nag moom mii di Erdogan daal di nay rek dakkal tournée yi nga xamante ni nii waroon na ko def fii ci réew Afrique yi ngir war a delluwaat fële nga xamante ni mooy ci diwaanu Turquie